ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne ni yéenay suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu la di dalalaat ci seen nouvelle vidéo tey nag ñuy waxtaanee lii di franc CFA muy ben sujet bo xamanteni ni nii abonné yi ñoko ko demandé si commentaire yi parce que parfois du tout le temps mais parfois dañuy suivre li nga xamanteni ni mooy bëgg-bëggu abonné yi parce que ça ñom duñu ñu mën di continuer vidéo yi parce que ñom ñoo ñuy suivre ñoo tax chaîne bi existé looloo tax ñu def ben taxaw seetlu ci monnaie bobu nonu di franc CFA bi nga xamanteni ni nii nañ ko utiliser fi ci suñu réew ak yeneen i réew yi nga xamné ñoo bokku ci BCEAO UEMOA looloo tax ñu def taxaw seetlu ci monnaie bobu nga xamanteni ni avant même les indépendances lañ ko commencé utiliser utiliser ci colonie française yi maanaam dëkk yi France colonisé woon ñuy wéy tamit di utiliser boobu ba ci vidéo bi nak dinañ dellu si ci histoire manam monnaie bi lan moo tax ñu créé ko dinañ wax tamit ci yane condition le français yi imposé suñu dëkk yi xaalis bobu nonu muy franc CFA dinañ leen expliquer tamit naka la France di profité ci monnaie bobu nonu di ci am alal du yok alal bi réewam wëlbatiku sax diñu ko lebal ñu japp ni ay bor yu ñuy lebal la alors que ni suñu alal la ñuy jël dañu ko lebalaat loolu lepp dinañ ci dellu si waat BCEAO bi nga xamanteni ni moy gérer monnaie bobu nonu banque bobu naka lañ ko gérer di ngeen am information yépp ci vidéo bii nii nous ñëw nag ci origine français FA, maanaam fan la jógee Français FA, ñu ko créé le 25 décembre 1945 Nous ko signé ak un décret qui a ni ñetti doomi France ñoo signé muy Charles de Gaulle nekkoon président du gouvernement de manière provisoire ak qui di René Pleven nekkoon ministre des finances maanaam ki yoroon Walum comme France ak Jacques Soustelle nekkoon ministre des colonies maanaam ministre bi nga Colonie, ni chargé de di veiller ci dëkk yi nga la France colonisée fii ci Afrique. France est nak mi ngi tekki franc des colonies françaises d'Afrique manam copar buñu ñu jagleel yi France colonisé fi ci Afrique après la français yi soppi tur bi tuddee CFA bi li di communauté française d'Afrique manam tour bi rek lañu ñu soppi pour neub ben deug bo xamanteni amana amaana dina mëna choquer choqué ñi dindi franc des colonies françaises bi nga xamanteni mom la doon tekki dipé ko communauté française d'Afrique jox ko signification CFA mais loolu lepp ci jéem a nax ñu la comme niñ ko faral di ñu ñëw nag ci lu tax français yi créé lii di français fa li nit ñi war a comprendre mooy mécanisme français fa bi ci boppam nekkul français yi ñoom ñoo am xalaat bi benn mécanisme la boo xamante ni nii allemand yi ñoo leen ko doon appliqué jamono yi nga xamante ni allemand yi ñoo dominé woon France entre 1939 jàpp 1944 allemand yi dañu dominé woon France occupé ay dëkk foofu nga xam ne mooy France dominé leen noot leen ak yeneen dëkk tamit yu nekk Europe ci noonee la allemand yi créé woon benn monnaie locale bu ñuy tuddee Deutsche des territoires occupés boo xamante ni nii moom la ñu lëkkaloog li nga xamanteni moy mooy Deutsche Mark bi nga xamanteni moy mooy Allemagne mécanisme bobu doon may Allemagne mu bénéficier wu ci li nga xamanteni ni mooy comme koomu dëkk yooyu noonu nga xamanteni mom la comme France bi guerre 1945 bi jeexee nak France copier même mécanisme bi len Allemagne yi utiliser won bi len dominer jël méthode bobu nonu appliquer ko dëkk yi mu coloniser fi nga xamante ni mooy Afrique ci fàttali tamit français fa biñ koy imposé suñu dëkk yi Sénégal ak yeneen réew ci forcé lañ ko defee manam dañu jaay doole forcé nañu ko jamono joju français yi colon yi dañ daan wër ci bépp bërepp moo xam ci marché yi wala yéen bépp bërepp boo xamante nii dañ fay def li nga xamante nii mooy jënd ak njaay ñuy xool ba xam ni ñaa ngi utiliser li nga xamante ni mooy koppar gi di français fa ñi nga xamante ni nag dañ daan utiliser yeneen façon jaay ak jënd yi nga xamante ni bokkut ak franc CFA da leen di jàpp tëj leen kaso wala ñu nangu seeni marchandise ci noonu lañ demee ba nit ñi nekk dans l'obligation utiliser utiliser français pas par force manam dañu ko forcer jaay ñu doole ñu utiliser ko par force parce que ñoom ñu coloniser woon ba tey ci walu fateliku ki njëkk bind ci li nga xamanteni ne français mooy franc dénoncé li nga xamanteni ni moy ni ñu utiliser jàpp ni ap moyen la pour nangu alalu Afrique def Afrique ap dëkk bu ndóol ki ci njëkkoon bind moy docteur en économie bi di Tchwindjiang poemi à économiste la bo xamanteni ni mi ngi ko Cameroun bindon en 1983 ben livre bi ñuy monnaie servitude et liberté bi mu livre bobu nonu dir bu yagul dara lañ ci tek mu dee génn àdduna ci anam yo xamanteni ni kenn mënu ko comprendre ñu bari jàpp jàpp nañ ni sax français yi ci boppam d'après bi bindee livre bobu nga xamné ne arrangé wul français yi français yi ñoko ray donc lolu ap rappel historique la rek pour xamal leen français fa bi fi mu jugee ba tay fi mu yegsi

ñëpp mën a comprendre franc CFA mooy ci leeral franc CFA ñetti acteur ñoo sék muy dëkk africain yi nga xamanteni ni utiliser franc CFA kenen ki di France ñeneen ñi di yeneen dëkk yi nga xamanteni ni bokku nañ ci li nga xamanteni ni ñoy tourner autour ci monnaie bop nonu expliquer na len sànq nak la français yi def ba inspiré wu ci modèle allemand bi ba imposer franc CFA li nga xamanteni nii dëkk yi ñu coloniser fi ci Afrique légui nak biñu créer li nga xamanteni moy monnaie bi dañu créer li nga xamanteni ni moy ay compte d'opération compte d'opération benn compte bancaire la bo xamante xamante nii dañ koy ibil bépp dëkk boo xamante ne nii utiliser franc CFA ap compte la ibi banque de France bi nga xamante mo moo nekk biir France par exemple bépp dëkk bu bokk BCEAO manam banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest kuñu melni Sénégal Mali Burkina Bénin Côte d'Ivoire ak yeneen dëkk ku ci ne am nga benn compte buñu dippé compte d'opération ci banque bu France léegi nak France bu bëggé jënd ay koom-koom fii ci Afrique manam bu bëggé jënd ay biens ay ressources naturelles wala ay produits agricoles France day imprimer franc CFA manam day créer ay billets wu CFA créer ko biir dëkkam manam CFA biñu né ñun ñoko ko moom ñun africains yi France ci bopam moy imprimer xaaliss bi biir dëkkam ñu koy imprimer ci benn dëkk buñ ñu naan Clermont-Ferrand foofu lañ koy imprimer té li ci gëna graw moy dëkk africain yi ci bopam ñoy fay xaaliss bi imprimer li nga xamanteni ni moy copper koppar gi après France xaaliss bi nga xamanteni mom moom la imprimé la France ñëw jox ko dëkk africain yi nga ci ñom la bëgg a ay biens manam ay walu kom kom fa leen xaalis boobu non jël biens yi nga la bëgg ci Afrique est-ce que a comprendre bu baax manam France ci bu bëggee jënd dara fii ci Afrique suñu dëkk yi du utiliser li nga xamante nii mooy xaalisam euro bi ñëw jënd déedéet puisque moom mooy defar xaalis bii di franc CFA parce que franc CFA biir France lañ koy defaree puisque moom moo contrôler monnaie bi moom moo koy defar xaalis boobu noonu suñu xaalis la jël imprimer ko biir dëkkam li mu imprimer ñun ñooy fay frais yi mu ñëwaat suñu dëkk utiliser xaalis boobu muy imprimer te dikkewu ko dara pour ñëw fay ñu ko ñu jaay li nga xamante ni mooy suñuy ressource mooy suñu koom mooy suñuy alal muy nekk lu garaaw lu yéeme te ba léegi jeexagul France bu noppee ci loolu contre compte d'opération yi ma la wax mom la deuk africain yi di am fele nga xam moy banque de France France bu ci paré di ci mentionner ay crédit manam ay bor yo xamanteni ci ay ordinateur lañ koy noter comme quoi que ni deuk africain yi am nañ ko ci banque de France bor yoy noonu mun na nekk sax frais d'impression yi nga xamanteni africain mom lañ wara fay pour que France imprimer xaliss bobu nga xamanteni mom la wara a sen comme. comme yi leneen nit lu yéeme lu garaaw lu dangereux moy xaliss bi nga xamanteni France mom lay jox deuk africain yi nga xamanteni ni ñoko jaay sen alal sen i comme koom xaalis boobu noonu dëkk africain yi utiliser franc CFA mënuñu ko utiliser à part zone UEMOA bi fenn rek lañ ko mën utiliser wat muy banque de France manam dëkk africain bu bëgg jënd dara biir France nga bëgg fa jënd ay matériel wala yaa xam loo fu mën jënd da nga ñëw banque de France indi xaalis bi nga xamanteni ni nii mooy sa CFA dem banque de France banque de France wecculoo ko euro pour que nga mën jënd ay matériel fofu nga xamanteni ni nii mooy biir France manam CFA bi mënoo ko utiliser feneen fudul foofu banque de France ngay dem ñu soppi la xaalis bi nga mën ci ci jënd ay matériel biir France bu fekkee ne nag dëkk africain yi dañu bëgg a jënd feneen beneen dëkk bi nga xamante ni bokkut ak France dañuy demander ay dollars ay dollars la ñuy demander fële nga xamante ni mooy Banque de France indi CFA ñu jox leen ay dollars jaareelu ko ci seen compte yi ñu am fële muy compte d'opération yi bu fekkee tamit am na beneen acteur maanaam beneen dëkk bu bëgg a ñëw bu bokkut ak France bëgg ñëw Afrique yi nga xam ne dëkk yi nga xam ne ñooy utiliser franc CFA bëgg fi jënd ay matières premières day fay en dollars te foofu tamit am na affaire bu yéeme bu ci am muy lan bu dee Afrique centrale dëkk bu dul France bu fa fa li nga xamante ne nii mooy ay matières premières soixante pour cent maanaam téeméer boo jël juróom benn fukki ci xaalis bi mu fay dañ koy jël verse ko Banque de France maanaam dëkk bu jaay ay matières beneen dëkk bu dul France quarante pour cent kese nga ci am maanaam bu dee téeméer yow ñeen am juróom benn fukki Banque de France lay nekk bu dee Afrique de l'Ouest maanaam ñun suñu dëkk yi Sénégal Malek consort beneen dëkk bu dul France bu fi ñëwee jënd fi ay matières première dañuy xaaj prix bi nga xamante ne nii moom la dëkk boobu fay dañ koy xaaj ci digg 50% bi 50% pour cent yi maanaam bu fukki banque de France lañ koy déposé yeneen juróom fukki yi ñun lañu am possibilité jël lan mo tax France nak di def nonu parce que France dafa né xaalis bobu nonu moy tax ñu garantir li nga xamante moy stabilité monnaie française. fa manam day tax monnaie bi du yegg di comme dollar bi ni muy mel bu tay mu yëg suba mu wàcc dañ né xaalis bi ñi verser fofu mo leen di permettre ñu mëna garder taux de change bi ñu garder ko mu yam benn place manam un euro boo jël buñ ko convertir mu nekk 655 francs cinquante mu yem foofu noonu fixe ba bouger ñu ne bi ñi versé ça motax mais en réalité taux fixe amul fenn li tax 1 euro bi francs CFA fi suñu dëkk yi te du bouger c'est parce que dëkk africain yi ñoy fay France pour que monnaie bi baña wala muy yegg te sax arrangé wul li nga xamanteni ni moy africain arrangé ko expliquer après en fin 2015 maanaam ñetti at si ginnaaw compte d'opération yi nga xamanteni deug africain yi utiliser franc CFA yi nga xamni mo nek banque de France seen compte yi nek fofu ñu ko estimé à 9 milliards d'euros manam alolu deug africain yi nga xamni mom lañuy la ñuy ko def compte d'opération yi nga xamanteni nenañ moy garantie xaliss bi mi ngi tollu ci 19 milliards d'euros boo ko convertir en CFA mi ngi tollu ci 13000 milliards manam fukk ak ñetti junni milliards de francs CFA yo xamanteni ni suñu compar mi ngi banque de France di nelaw te li ma leen di wax ni 2015 imaginez 2015 et 2018 kon xaliss bi yokuna na na 000 milliards di dem. moo tax France bu ñëwee ni dañuy dimbali ay naxee mbaay la reetaan lay def parce que suñu xaalis bi fa nekk moom la ñuy jël di ñu ko joxaat di ko lebal pour que ñu fay ko xaalis bi nga xamante ni moom la ñuy verser Banque de France bu ñu jaayee suñu koom-koom yeneen dëkk yu bokkut ak France xaalis bi ñuy xaaj di leen ko jox France xaalis boobu tax na France am alal gu takku bi nga xamante ne nii musu ko delloo africain yi alal ju muy jël la gratuitement te du ci fay dara bu bëggee jënd fii nga xamante ni mooy Afrique ay koom-koom France suñu xaalis jël imprimer ko biir dëkkam jël xaalis jox ñu ko ne day jënd ay africain alal gi nga xamanteni mom moom lay récupérer à travers compte d'opération yi nga xamanteni africain am nañ ko fa mom lay utiliser pour am ay intérêt diko placer ci ay marché financier lenn li mu jël ko ñëw lebalaat ñu ko alors que suñu alal la bu ko défé après lolu France di wër ci aduna gépp di wër ci média yi di wax naan mi ngi dimbali li nga xamanteni moy dekk africain yi alors ko loolu lepp dara dara amu ci France mosuñu dimbali mosuñu lebal suñu alal lay jël diñu ko joxat diñu ko lebal ñu continuer diko fayat fayaat te képp ku yaakaar ni France dina delloo ci xaalis boobu noonu benn dërëm dinañu ko delloo yaa ngi nax sa bopp fas yéene wuñ ko lenn rek mooy koy faj mooy ñu génn ci franc fa am suñu monnaie bopp. donc loolu ab tënk la moo ne franc fa pour mu leer ci bopp nit ñi franc CFA naka lay fonctionner.

léegi nak ñu ñëw ci institution français CFA yi maanaam ay BCEAO ak yu ñu mel ak impact bi nga xamanteni am nañ ko ci économie locale manam ci économie africaine bi rawatina fi ci Sénégal dafa am ay banques yi nga xamanteni ñoy gérer français fa muy Afrique centrale Afrique de l'Ouest li ni ñu comprendre mooy Afrique centrale Afrique de l'Ouest ñoo bokk même français fa bu ñu utiliser mais li ci garaaw mooy seeni fa mënu ñu ko utiliser ñom entre seen différents régions Manam ñun suñu CFA bi ñu utiliser mënu ñoo dem Afrique centrale utiliser ko fa alors que ñom même CFA lañ yor mënul nekk parce que région yi bokkul par exemple ab camerounais bu bëggee jënd ay marchandises fii ci Sénégal CFA la yor mais CFA bi mu yor bokkut ak ñun CFA bi ñu yor day utiliser CFA boobu noonu dem France convertir ko wecc ko en euro jël euro boobu noonu jëndee ko CFA ñun CFA bi ñu utiliser jëndee ko fa pour ñëw Sénégal jënd fi li nga xamante ni mooy ay biens ak ay marchandises est-ce que yéen a ngi comprendre beneen mécanisme la tamit pour gën a gagner xaalis ci li nga xamante ni mooy africains yi bañ na ko sax ba chaque zone zone bu ci nekk muy Afrique centrale Afrique de l'Ouest zone bu ci nek dafa am ben banque centrale bo xamanteni moy gérer xaalis bobu noonu te d'après ni ñu expliqué banque centrale yoyu noonu dañoo libre te mën nañ jël ay décision ku ko dégg nak da nga yaakaar ni banque yoyu yu ci melni ay BCEAO libre nañu pour manipuler franc CFA bi pour intéresser ni rew waye lolu amul du deug banque centrale yoyu nga xam ay africain ñoo fa ne africains yi amuñ fa ben ndogol France di bopam bi coow li jibee mu bëgg apaiser tension bi France dafa arrangé pour contrôler banque centrale yoyu nga xamanteni ni ñoo nekk ci deug africain yu utiliser

mais banque yoyu libruñ amuñu ben jëri bo jëlé par exemple Afrique centrale conseil d'administration bi buy BEAC conseil d'administration bobu boobu bu fekké ni dañu bëgg jël ben décision fokk ben administrateur français approuvé pour que ñu mëna valider loolu noonu buñu bëggé manipuler monnaie bi. loolu moy buñu waré jël ben décision bo xamante ne France France bu ko nexé baña envoyer ben membre ci réunion yi nga xam fa lañu ñu jëlé a décision décisions yi pour bloquer bépp activité bo xamante ni français yi nga jël Afrique de l'Ouest maanaam BCEAO banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest balaa de jël ay décisions ci biir conseil d'administration, il faut que membre yëpp ànd ci dogal boobu noonu maanaam bu bien un membre bu bañ rek duñu approuver li de décision comme nous l'avons expliqué Zang. ci biir conseil d'administration, administration boobu ñaari membre ay français lañ France ñoo leen désigné et bu ci kenn d'accord. décision bi kenn du donc li ñi war a jàngat France dafa mettre ay dispositions yo xamanteni ni da koy permettre mu am ben droit de veto manam ndogal go xamanteni lepp lépp lu ko neexul ci banque centrale yi lepp lu ko ci neexul du ci am sa yu naree jël décision yo xam ne arrangé France France day utiliser li nga xamanteni moy droit de veto pour naxasal bépp opération bo xamanteni dina mëna permettre sax ñu créer ben monnaie conséquence bi moy dëkk africain yi utiliser franc CFA mënu ñu sax utiliser monnaie bi di franc CFA pour doler seen économie manam France ni mu amé droit créé moom monnaie pour ñëw jënd si suñu dëkk yi ay matières premières ñun mënuñu fabriquer français fa ci num ñu nexé mënul nek té tay ñëpp xam na ni tay politique monétaire moy moyen bi tax dëkk mëna développer li di comme comme tay buñu ñu exemple Chine mo nek deuxième économie mondiale maanaam ñaareelu dëkk bi avancer a ci walum comme. comme lutax parce que Chine mo mom moneem te koy contrôler nu ko nexé Chine dafa décider wañi monnaie. def ko monnaie bu basse monnaie bu woyof di manipuler nu ko nexé tay nga jël tamit États-Unis États-Unis ñom ñoo baye dollar bi defu ñu ben effort pour que mu yegg parce que dañu autonome seen monnaie nu len neex lañ koy manipuler moo tax seen économie nu len neex mu mel lay mel. donc li ci nit ñi wara comprendre moy Afrique dëkk yi nga xam ne ñooy utiliser franc CFA mënuñu avancer économiquement tant que ñu ngi woy di utiliser franc CFA mënul nekk parce que ñoom fabriqué wuñ monnaie bi franc CFA ñun fabriqué wuñ ko France moo koy defar di ko defar nag ci saa yu ko soobee ak ni mu ko bëggee ak ni mu ko sababee tey bépp matière première bu ñu jaay xaj bi bénéfice bi xaalis bi xaj bi ci compte d'opération yi nga xam ne moo nekk Banque de France dañ koy déposé kon ñun naka la ñu mën a avancer économiquement mënul ne mënul ne tey ñu ngi wax waxi pétrole ñu ngi wax waxi gaz mais avec ce système là avec mécanisme France franc CFA bi nii du amul benn njëriñ suñu dëkk yi tant que monnaie bi ñu ngi utiliser donc lenn rek moo koy faj muy révolution révolution faut ñu am benn président bo xamanteni ni dina xar tànku tubayam taxaw am fulla jël ay matukaayam taxaw révolté wu na té nag and ci yeneen dëkk yi parce que gëm nañu tamit franc CFA li gëna a yomb ñu génn ci am benn monnaie bu forte monnaie commune bu forte moy dëkk yu bari and ci ne se reste que juroomi dëkk ñu and ci créer benn monnaie unique révolté wu parce que révolution mo koy faj révolution moy faj ñu génn ci franc CFA moom suñu bop de contrôler notre économie de manipuler suñu monnaie nu ñu en am ce que li nga économie ko donc vidéo bi tay loolu la woon ñu jagleel ko li nga xam ne mooy franc CFA ñi nga xam ne comprendre duñ ko yenn terme technique yi nga xam ne moom la ñuy utiliser parfois di leen ko expliquer du mën a leer seen bopp ñu woyofal explication yi ba mu gën a woyof ci déggnu nit ñi pour que ñu comprendre français fa bi lan moo tax nit ñi di ko wax lan moo tax ñu bëri gedd monnaie boobu parce que lii rek la monnaie la boo xam ne amul benn njëriñ lu dul delloo ñu ginnaaw donc ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf